vidéo nag noonu la defee ci li nga xam ne moo doon dixième journée bu Adrien Senghor rëg-rëg Sathiès nag kii di Sathiès daal na rëg-rëg yëkkati kàddu wax lu ñu mel nee nag li mu soxla mooy ñu delloo ko lii di drapeau am moom rëg-rëg nga xam ne moom lañ déclaré vainqueur moom nag nee na ko Sathiès gëmal yàlla man maay lambu loolu di kàddu yi ki nga xam ne moo di rëg-rëg waaye jàppale nag kii di Maysa Ndiaye moom daal dina yëkkati kàddu ngir évacuer lii di ay jëm ci combat bu ñu mel Sathiès déposé recours recours bu ñu mel nag nee dinañ ko vidé ci semaine bi la ñu nekk nekk lii nekk di président bu CNG nee na il a un délai de 48 heures pour traiter un recours kon xaar leen semaine bi nekk diggante Sa Thiès ak Reug Reug dana leer recours Sa déposé nañu ko il a un délai de 48 heures pour ñu traiter ko joxe verdict final ñu di xam Sa Thiès Reug Reug kan moo daal di yóbbu ndam la jamono jooju nag lu ci mënta am mooy combat ba jeex na Reug Reug jox victoire ca fële ci arène nationale moom la arbitre jox victoire waaye record Rewmi Sport Rewmi Sport ñoo nag ci Sénégal mi dem final gannaaw bu mu daanee lii di Tunisie 3 buts à 0 nee les Lions répondent au président tunisien combat Sa Thiès Reug Reug le CNRA a tranché Tribune Sport Tribune Sport ñoo moom tamit eh, ci li nga xam ne rek moo doon demi-finale yu suñuy ndaw doon football le Sénégal 4-5e ce que Malick Daf a demandé à ses joueurs jusqu'à la victoire le Sénégal dure à stopper Fra face à la Gambie pour sa quatrième finale jamono ji nag Sénégal daan lii di Tunisie 3 buts à 0 ca demi-finale ba ngir dem ca finale war ca jamono ki la di Gambie après son recours déposé au CNG Sa Thiès attend sa victoire diggante ak moo di a kaay ñëw ci ba tey demi-finale bi suñu seenu gaynde yee gaañ digganteen ak Tunisie ba mën a am li nga xam ne moo di seen quatrième finale d'affilée jëm ci CAN U20 fële si Chelsea nag Koulibaly en Chelsea en danger Benfica en pôle Koulibaly un leadership à imposer à Dortmund grand porteur nous voulons nous assurer que loolu nag war dox ngeen xam Ligue des champions retour euh, dem ci huitième de finale niki tey jëlee lay door Chelsea moom digganteem ak Dortmund la waaye nag fële ci Paris saint moom xibaar ba neexul dara ndax kii di Neymar nag moom daal di dañ koy la ca tukkee nag moo di saison tëj na moom Neymar dootu bokk ci Paris Saint-Germain ñuy jongante file ba saison bi ñu nekk daal di jeex loolee ci ab blessure bi nga xam ne amoon na ko moo ko yóbbee lu ni mel les Lionceaux ci record yenn kaay les Lionceaux déplument les Aiglons euh, de Carthage donc nag suñu gaynde yi dem ca final ba gannaaw bu ñu dóoree kii di Tunisie 3 bi ci CAN u bu ñu amal fële ci Égypte ci atum 2023 Koulibaly et son expérience en guide des Bleus jàppale ne nag Mozambique Sénégal se jouera à Maputo donc ngir jëm ci wàllu CAN Côte d'Ivoire 2023 éliminatoire yi nag moom la ñuy waaj a door ni mel basket nag les Las Douanes en rôle en rôle parfaite adjuvant donc nag ba tey ci record yéen kaay ngeen mën a liir lu jëm ci Reug Reug convaincu de sa victoire j'ai fait trois appuis et non quatre je comprends Sa Thiès il est désespéré jëm nag ci combat moom bi doon dox ci digganteem ak Sa Thiès ak la ca tukkee le soleil yéen ñëw tamit moom ci demi-finale dana CAN U20 Égypte 2023 ak Sénégal Tunisie gannaaw bu suñu génne daanee Tunisie ñetti bal ci dara nee na les lions sont sur les pas des Générations noonu lañ ko bëggee donc ñuy xaar suñu génn yi dem jël ko ba indilaan ñu ko mu fekki suñu ñetti coupe yi nga xam ne moom la ñu am ci diggante njeextu 2022 ak 2023 mbokk mi nekkoon xibaar jëm ci wàllu sport ñooñu jox dig daje.